maaleykum wa rahmatulah mbokk internet SSP TV dalee leen jaamoo fii ci SSP TV ñu ngi leen di nuyu bu baax di leen ziar di leen wàccee seen wàcci waay ñoo ngi leen nuyu rek ci ajuma ji li gën a fës ci xibaar yi xamoon ngeen ni moo nekkoon tey àjuma procès ki nga xam ne mooy Oustaz Omar Sall di prêcheur boobu ak collectif des jeunes Tidiane bi xam ne ñoo ko porté woon plainte si ay kàddu yoo xam ne waxoon na ko jëmale ko si seen ay xadara ak seen ay wasifa yi nga xam ne ñoom la ñuy def ki nga xam ne rek mooy Omar Sall gannaaw bi nga xam ne téye woon nañ ko lu mat ñaari semaine fee ca tribunal bu Dakar moom mujjee nañ ko àtte tey bo si li nga xam ne moo gën a fës tribunal nag di ay eh, laaj tontu nga xam ne diggante ki nga xam ne mooy Omar Sall ak ki nga xam ne mooy juge bi di ay laaj ak tontu yoo xam ne ñoo doxoon ci diggante ki nga xam ne mooy Omar Sall ak ki nga xam ne moo ko doon ah, àtte na si li nga xam ne nekk uh, kàddu yi nga xam ne gën na faa si si soo xoolee si eh, site officiel bu Asfiyahi TV di télévision Tidiane boobu uh, moom Omar Sall nag nee na yooyu noonu mu doon wax yëpp mu ngi si jégalu ñi nga xam ne ñooy Tidiane su nekkee wax ji daf leen metti bokk na si yeneen yi nga xam ne révélation yoo xam ne wax na ko nee na eh, am na si jamono yoo xam ne yenn yooyu mu doon wax dafa fekk moom yàlla yàlla la woon na neuf ans te julliwul moom Omar Sall mooy wax ba tey nee na yooyu noonu muy wax ne bidaa la ak yooyu noonu yëpp moom nee na ba koy wax ay jamonoy ndaw la ko wax dellu teg mu waxaat ni moom Omar Sall su nekkee loolu yëpp moo doon wax dafa metti Tijaane mu ngi leen ci jéggalu bu baax a baax a baax te di leen baalu waaye ba tey rek moom Omar Sall génnul si li nga xam ne moom la doon wax di ko wasifa ak xadar yooyu nga xam ne Tijaane moom la ñuy def yeneen bi bàyyi ko fi yeneen bi diglewu ko mu nekk foo xam ne moom ba tey mu ngi jàpp si loolu suñu jógee si ñu nga xam ne ñuy collectif des jeunes Tidiane ñoom tamit eh, nee nañ tamit amuñu woon yéene pour ñu tëj ko waaye li leer te leer mooy te ñu bëgg ko mooy ki nga xam ne mooy Omar Sall ak nitam nañu bàyyi di ŋàññ seen tarixa ak seen gëm-gëm si li nga xam ne moom lañu ñu bëgg mu nekk loo xam ne tamit tey si tribunal bi eh, eh, audience bi yàggoon na lool ndax huit heures la si suba ba à la fin ba ay bi di jeex mu nekk loo xam ne gënoon a fës tey ci àjjuma ji bokk na si leen li nga xam ne moo gën a fës nag ki nga xam ne mooy Gris Bordeaux di mbër boobu na di écurie jiite écurie Fass moom Gris Bordeaux dafa dañ kaa accuser lu jëm si wàllu euh, sàcc ak euh, li nga xam ne mooy euh, jël alalu jàmbur ki ko ko jiiñ nag mooy ki nga xam ne wax nañ ni moo ko hébergé woon fee ca bitim réew ca dëkk bi nga nekk bi mu nekkoon ba ko génn def ay audio def génne ay vidéo yoo xam ne fës na lool ci li nga xam ne mooy réseaux sociaux yi boobu léegi nag eh, coow laa ne cour ci ci ci internet bi ba ñi nga xam ne ñooy famille Gris Bordeaux sax gis jénn nañu def li nga xam ne ñooy ay témoignage ak ay éclairage yi li nga xam ne moo xew waaye loolu yëpp dinañ leen ko toppal ànd ak ceeg SBT TV la télévision qui fait la différence ñu ngi leen di ñaan rek ngeen yendu ak jàmm wasalaamaaleykum wa rahmatullah